الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد بكي جلدي خمجن نجي دلمل ويرو مق شهر رمضان المبارك كو خمنا يعني سنتو غن كو خمنا قو liñu ñu moy nga wajal ko sa ramadan nak bokku na ci niñ koy waajale moy nga réglé wat sa bop ndax daw da nga ci gennon am bind yu bari yo ci jangon yaagi dem nak ba di ci bëgg dugaat war nga nat ba xam li nga jëlé won ci wéru koru daw ba légui yaagi ci sax dafa wala dafa wañiku kon war ngaa def muhasabatu nafs muy régler waat sa bop régler ko ci gumu gu mu gàttañlu lu gumu mu lu ci dëggal ñaari batti sédé yi nga xamné moy tax nit ki sax ci l'islam wala lu gumu mu lu ci yi war ci ay ndigal wala lu gumu mu lu ci bayyi yi nga xamné moy ay téré su ko bi dom adama bi mën a nekk ku jub ci aw doxinam ci biir weeru koor mën a am daraja bu kawe ci ngëm yàlla ndax weeru koor kat suñu borom tabaraka wa taala ñim ko jëme ci ñoom digal leen ko mooy ñi gëm yàlla yaa ayuha allazina amanu kutiba alaykum am kon nag war ngaa vérifier seetaat bu baax ba xam yow bokk nga ci ñooñum déet ngëm yàlla nag ñu xam ne doo ko am rek daal ne jeex na waaye luy yokku la ak di wàññiku ngëm yàlla day ku ci topp yàlla waaye day ku ci mooy yàlla topp yàlla gi nga xam ne nag moo jiitu war koo dëggal war koo amal mooy nangoo nek jaamub suñu borom tabaraka wa taala moom rek dëggal ci boppam ne amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg kudul suñu borom tabaraka wa taala su ko defee mboolem lu muy def ci jaamu mu jëme ko ci yàlla du ca boole keneen du ca njistal jaamu yàlla yi muy def ci bitti ak jaamu yàlla yi muy def ci biir jaamu yàlla yi nga xam ne jaamu yàllay xol la muy ragal suñu boroom wala tiit wala jàq wala yaakaar wala wakiirlu walla ci tuub di dellu si wala wut ndimbal wala xeetliku yooyu yëpp ay xeeti jaamu yàlla loo xam ne jaam bi da ko war a wéetal suñu boroom tabaraka wa taala naka noonu itam jaamu yàlla yi nga xam ne jaamu yàlla zahir la mu yi muy def ci cëram mu am yaqin bu wóor ne lu ko dal dafa fekkul woon mu nar koo muy waaye lu ko moy itam dalu ko dafa fekkul woon rek mu nar koo dal mu xam ne lépp ci dogalub suñu borom tabaraka wa taala lay dox jaam bi itam wattandiku lépp loo xam ne luy firi lu wuute la ñaari baati seede yooyu di tawxiit te bokk na ca loolu sori ay bidaa soli di sas dara ci diine dëggal itam alwala wal baraa muñ ñi ngay féeteel ak ñi ngay noonool ki gëm yàlla ñi gëm yàlla la war a féeteel waaye ñi wedd yàlla wala ñuy ay ñoo ñu la war a dëngool ñu la war a noonool jullit bi daa war di bég ci bu jullit ñi amee ndam ci kaw seeni noon di roy ci yonente bi aleyhi salaatu di roy ci khulafa yi ko wutu won do dox aw doxinam di bëgg képp koo xam ne bëgg na sunna yonente bi alayhi salatu di ko aar suuf su mën a dëkk ak melokaanu yaramam nu mën a mel mu xam ne kooku mooy ki nga xam ne mooy mbokkam kooku mooy soppeem gannaaw ba jaam bi war naa régler boppam itam ci gàttañ lu gu mu gàttañ lu ci topp yàlla yi lu mel ne gàttañ lu ci jooxe julli juróom ci mbooloo gàttañ lu ci tudd yàlla gattañ lu ci joxe aqi dëkkandoo gattañ lu ci joxe aqi ak bokk gattañ lu ci aqi yi dox sa ak sa mbokki julit yépp gattañ lu ci nuyo gattañ lu ci digle lu baax ak tere lu bon gattañ lu ci dénkante dëgg ak di ca muñ gattañ lu gu am ci bàyyi lépp loo xam ne lu ñu tere la ak gattañ lu gu am ci def lépp loo xam ne bàyyi lépp loo xam ak topp la loolu lépp doomu aadama bi da cee war natt boppam ba xam fan la ci toll doomu aadama bi war naa rek la boppam itam ci ndax bàyyi na yi ñuy téreem mbét su fekkee nekkoon na ci lu ñuy tere mu bañ caa wéy dal di cay tuub dal cay génn ak loola lu mu ndawe ndawe ci ay bëtam bu mu ko xeeb ndax benn tuuti wu ci te boo xam ne borom def caa sax dafay mujj malbati ku nekk bàkkaar bu mag mu regle boppam ci mooy yàlla yooyu ndax mu yàlla gu mu def ci bët la ci di xool lu yàlla xaraamal wala mooy yàlla gu mu def ci nopp la ci di déglu yàlla xaraamal lu yàlla araamal wala mooy yàlla gu mu def ci tànkam la ci di dem foo xam ne suñu borom gërëmul mu dem fa wala gu mu def ci loxoom la ci laal ci loxoom wala defar ci loxoom loo xam ne suñu borom gërëmul loola wala lekk lu yàlla xaraamal lu mel ne riba wala lekk ger ak lepp lek lepp lo xamne day dugg ci lek alal nit ñi ci neen doomu adama bi warna tek batam bëtam fu mu toll ci wax gi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wax ne suñu borom tabaraka taala mi ngi talal loxom ci beccëk ngir ñi doon moy yalla ci guddi mën a bu guddé itam mi ngi talal loxom ngir ñi doon moy yalla ci beccëk mëna jamono bu nekk suñu borom mi ngi talal loxom ngir ku bëgg a ku bëgg reccu li nga xamne mom nga defoon borom bi ne yéen ñëpp gaaw leen jëm ci ak njëggal gaaw leen jëm ci lu leen di may aljana joo xam ne yaatuwaayam tol na asamaan ak suuf te nee na ma ngi ko fa tegal ñu ragal yàlla te ñu ragal yàlla ñooñu nee na mooy ñi nga xam ne dañuy joxe seen alal ngir yàlla ci jamonoy mbégte ak jamonoy xat-xat bu ñu meree dañuy denc seen mer duñu wax lu ñaaw duñ ko jëf waaye nee na mooy ñi nga xam ne itam bu ñu rëccalee ba def ñaaw teef togn sen bop dañuy jéggalu suñu borom tabaaraku taala waye duñu nuur ci ay bakkaar ba nopi xam li ak moy la ba nopi nga di ko wutal ay lay di wax ne mën guma ca genn suñu borom ne ñi mel non de lima leen di fay ak moy ak jéggal lima leen di fay ëllëg mooy aljanna té na lolé day kum door sak pay am nga pay go xamne gu rafet la suñu borom delu wax ne yéen sama jaam ñi nga xamne da ngay ëppal ci togn sen bopp bari bakkaar lool bu mu tax ngeen naagu defe ne yàlla mënatu leen a jégal bu kenn naagu ci yërmande yàlla yàlla bakkaar yépp lay jégle li feeg nit ki faatoogut tolloogul ci sukuraat bakkaar lu mu rëy rëy rëy donte bokkaale la bu ko tuubee suñu borom tabaraka wa taala daf koy jégal borom bi wax na ko ne wa man yaamal suu'an ku jëf lu ñaaw aw yazlim nafsahu wala mu tooñ boppam summa yastaghfirillah topp gannaaw ba nag mu tuub jéggalu yàlla yajidillah ghafura rahima dana fekk ne suñu borom day kuy jéggale la kuy yërëme la mbokk yi kon ci regle googu ñu war a regle suñu bopp ci tuub ak ndax kat barab gan ku koy bëgg a dalal ci barab da ngay setal barab ba koor nag ci xol yi lay dal ndax ngëm yàlla lay fekk si kon xol yooyu lañ war a setal niñ koy setal nag mooy ak tuub ci ay bakkaar jéggalu suñu borom tabaraka wa taala mboolem ay rëcc rëcc yu nekkoon ci nun ba koor gi buy ñëw fekk nu ci ngëm yàlla gu mat sëkk su ko defee ñu mën a bokk ci ñi borom bi tabaraka wa taala waxal ci koor ñu xam koor weeru bénéfice la weeru mang ay yiw la te xam nañ commerçant bu am xel te xam commerce day profito ci ay teret xew-xew yi am nga xam ne njaay ma day bari lool da koy jaral déplacé wu jël marchandise am sonn ca lool barab booba lu mu sori sori dana fa dem ngir njarte la fa am yow na bu fekkente ne gan gi ñëw moom fekki woo ko waaye moom moo la fekk si kon war nga koo yaatal bu baax te profité ca bu baax dolliku ca tuyaaba bu baax li ñuy tudde naan promotion dafa am boo jëndee nangam ñu defal la ko nangam promotion bi gën a rëy mooy weeru koor bu ñëwee lépp la def ci tuyaaba borom bi tabaraka wa taala koy ful kon nit ki war naa baril ay jaamu yàllaam war naa baril jàng alquran waaye itam nag war naa baril di jéggle war naa baril di rafetal di jëme ci doomu aadama yi di sarax ñi nga xam ne ay fuqara ay miskin lañ yoo xam ne ñu ko aajoo lañ ñu xam ne ci biir weeru koor suñu borom tabaraka wa taala dafay ubbi bunti àjjana yépp waaye itam dafay tëj bunti safara te seytaane yi nga xam ne ñoo doon gàllankoor nit ñi suñu borom da leen di jéng su ko defee dana am wootekat buy woote guddi gu nekk ne yow mi wut lu baax dikkal sab tereet ñëw na waaye yow mi wut lu ñaaw yow mi wut safaan dellool gannaaw lii du sa waxtu yaa baaxil xayri aqbil wa yaa baaxi charri aqsir kon nag mbokk yi nañ fexe ba bokk ci ñooñu nga xam ne dañuy wutu yiw di topp doxinu ña leen jiitu woon ci lislaam topp sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba bu ñuy génn ci weeru koor génnaale fekk jéggal na sunuy bakkaar waaye borom bi tabaraka wa taala nangul na nu sunuy jëf kon ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq ba nu fekke wer koor sunu ko fekke itam mu defal nu tawfiq ban man ko wor mana taxawe ay gudem man ci def lépp lo xamné ay top yàlla la waye watandiku ci lépp lo xamné ay mo yàlla la innahu dhalika wal walqadiru alayhi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain